mu nekk loo xamante ni ça me va droit au cœur sama yaram dafa daw ma gisee ay mag ñoo xam ne am na si ñoo xam ne jege nañ quatre-vingt-dix ans ñoom doyen àll àll kan ak ñu ñu àndal ñëpp ñu nekk des troisième age gis seen bopp ci programme président Ousmane Sonko ba pare di ko fësal mu jaral leen ñu dajaloo ñoom ñëpp pour jëmmal li nga xamante ni. moom mooy cellule boobu noonu ñu tuddee màggu Pastef mu nekk loo xamante ni lu ma neex la te lu neex ñu ànd ak waa Pastef la donc ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa boor bële waa Benno Bokk Yaakaar yi ñàkk xorom yooyu noonu ànd ak Macky Sall nga xam ne Sénégal yi dañ leen a ba pare ñu ne ñoom mënuñoo accepter lool ñoom dañuy génn à chaque fois bu Ousmane Sonko waxee ñu génn dañuy riposter mel ni ñoom ñooy ay opposants fu mu nekk nii. heure bu Ousmane Sonko génne ñu ne dañuy répliquer quoi yebal nañ mu Touré mu wax a wax a wax ba sonn ñu ridiculiser ko léegi nag ce transhumant de merde là Abdoulaye Sow nga xam ne gëmul dara transhumant bu bon boobu nga xam ne ku nekk président rek yow lay àndal fii la nekkoon ànd ak président Abdoulaye Wade ba mu daanu mu ñëw ànd ak Macky Sall ay poste moo leen intéressé ak ay privilège avantage ak sàcc bi nga xamante ni këram banque la kër ga mu ngi tudd Fara Bank muy ba Ngom nga xamante ni nekkul lu dul député maire bu añam ñu ne mooy le grio di président de la République jël këram denc fa lu tolloog huit cent quatre-vingt-dix millions un milliard yu manqué cent dix million ba pare nekk ci dëkk bi di organiser ay conférence de presse naan day saaga nit ñeeg day xasteeg day suli ay dossier fen di ci wax ñoom amuñ argument amuñ xam-xam ñu demee ba Farba Ngom nga xam ne man ak moom a yem bopp bi dara nekku ci jàngul xamul tus génn naan mooy répondre al Macky Sall wala mooy def réplique di waxal Macky Sall ak cadre yu nekk après ak cadre yu nekk Benno Bokk Yaakaar nga xam ne kon c'est fini Macky sàll daanu na donc ñoom dañuy wax ne Ousmane Sonko dafay manipuler xale yi waa léegi mag du ngeen génn wax ne Ousmane Sonko tamit da leen di manipuler ah quand Ousmane Sonko forme na su fekkee man na manipuler xalé yi ba paré manipuler walé magni kon kañ Ousmane Sonko mom wa sénégalais mom moom andal ñu àndal accepter leen loolu rek lolu kañ c'est plus simple té xalé yi sax légui ils sont devenus conscients manam jeunesse sénégalaise bi dafa nek jeunesse bo xamante légui dañu instruire dañu éveillé wu maanaam du benn waay mooy jógee koo fële ñew rek di wax rek ñu top la Ousmane Sonko top bi ko jeunesse bi top du ay affaire yu caaxaan quoi du ay ñëw wax waxu balaa balaa non bu doon loolu la ñuy topp Macky Sall wala ñu topp keneen léegi lu tax politiciens yi ñu ñu bëree jeunesse bi bàyyi fi ñëpp topp Ousmane sunk loolu manipulation rek daf kaa man su doon manipulation keñ Macky Sall moo fi dàq manipuler te jeunesse bi toppuñ ko forcé ne lu nekk def na ko jeunesse bi mën nañ ko topp kon nangu leen lu yàlla dogal si Ousmane Sonko moo gën. te sen xex bi ngeen koy xex ngeen jël ko tek ko ci souf te xamna man ta sotti Sénégal yéen momu len ko Sénégal du sen ndono mam du sen ndono bàyyi il faut que loolu ngeen gëm ko il faut que vous le sachiez le Sénégal n'appartient pas à la famille Sall ni fay ba ngeen ne yéen da ngeen di accaparer wu ci pouvoir bi wala da ngeen di agripper wu ci pouvoir bi di xex nit ñi di xol ñun ñoo wara a nekk président ak ñu war a nekk président di manipuler justice bi pour mu éliminer la candidature du président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko il est aimé par les sénégalais il est plébiscité par les sénégalais sénégalais ils sénégalais Les sénégalais Macky Sall en 2012 yow Donc, président par défaut la a donc nous, nous mënti ils nous choisir nañ ko waaye bu fi naree nekk naan day xañ sénégalais yi ki nga xam ne moom lañ bëgg coow moo fi am problème moo fi am parce que sénégalais yi waruñoo tànn kenn ne kii lañ bëgg mu ne yéen kii du ngeen ko fi bëggee kii du fi faloo mais loolu mënta nekk sénégalais yi ñoom ñoo yore souveraineté bi le peuple est souverain peuple bi mooy xool ki ko neex mu tànn ko teg ko ci bopp réew mi pour mu jiite mu jiite leen donc peuple bi wane na boppam ci Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko mii moom lañ bëgg wane nañ ko ci ñaari élection yi mu jee passé di ko wane partout kon loolu il faut que ñoom ñu accepter ko nangu ko parce que réew mi jàmm lañ fi bëgg réew mi stabilité lañ fi bëgg te luy indi stabilité moom xam na ko moom luy indi stabilité mooy mu bàyyi Ousmane Sonko mii te xam ne Ousmane Sonko mii moom amul dara lu mu ko ëppale lu ko Ousmane Sonko ëppalewul moom ëppalewu ko sénégalais la Ousmane Sonko sénégalais la jàng na Ousmane Sonko jàng na am droit am ay ambition présidentielle ba sénégalais yi def ko président Ousmane Sonko tamit pareil amna amna amna am droit am ay ambition présidentielle te sénégalais Inch'Allah, allah dinañ ko def président parce que sénégalais yi moralement dañ ka fal ba pareil. parce que buñuy wax sax da ngay dégg ñu naan président Ousmane Sonko ñëwé donc lolu <laughs> manu ci dara mom ay euh, général Moussa Fall ay bokkar yargak ay justice Bek man yi manipuler armée Ousmane Sonko <laughs> nous avons une armée républicaine quoi voilà Ousmane Sonko li wax bu militaires Mali mais da cee droit parce que président mooy chef suprême des armées bu ko neexee mu jël militaires am bu ko <laughs> voilà donc affaire bi manipulation yi ngeen nekkee du jàll seen saaga yeeg seen xaste yi bu nit ñi génnee di wax xam-xam ngeen di jël doomi bi def ko bras armé di ko le président Ousmane Sonko jàpp na loolu mooy tax sénégalais yi bañ ko te bi ngeen ko def ba léegi Sénégal dañoo continuer di ko bëgg lu nekk ji ngeen ko fi président Ousmane Sonko lu ne président Ousmane Sonko biir na mais traitez de tous les noms d'oiseaux ce que les sénégalais yi Les sénégalais dañoo gën continuer sax bëgg inciter dafa sénégalais pour ñu gën plus bëgg Vous ne du noppalu sénégalais yi carrément président Macky Sall dit la wan nañ la ko ci partout yow nga gumba taxlu ne sénégalais yi waruñ maa mën a vomir nguur gi tamit du ma ko bàyyi fu ñuy mujjee nag xam nga ko te su fekkee bëgg nga ko dañ ciy dem ak yow ah ça dépend ci yow rek su fekkee xeex nga bëgg ba tax nga dem préparer sa mus euh, sa sa benn Moussa Fall armé ko ak sa benn Bokar yàgg ut sa ay juge ne da nga fësee ne éliminer président Ousmane Sonko ci élection yi boobaa boobaa moom gars yi dinañ jàmmaarloog yow parce que am na foo xam ne bu fa tollee moom. xeex moom mënul ñàkk wax dëgg yàlla parce que nag <laughs> nañ waxante dëgg te jii boo fi waxee waxu xeex ñu bari naan la waaw dëkk bi jàmm lañ fi bëgg waaw mais est-ce que nit dangaa war a bàyyi nit moom mu toog lu nekk rek mu teg la ko yow nga tegoo ko mais yonent bi kan moo ko gënoon nekk nit ci jàmm mais yonent bi jàmm rek la doon oote bañ na ko ba dina lislaam sax salaamaaleykum wa rahmatullah la ñuy nuyoo asalaam mooy jàmm drapo lislaam drapo jàmm la mais nag dañ ko daan fekk mu toog moo ko ay nitam mu oote dëgg non seulement gëmuñ ko ba pare su ñemoon ci ñàkk kaa gëm rek toog may ko jàmm mu tane mais dañ kaa weddi ba pare ñëw di ko attaqué di ko déclarer la guerre donc moo tax nag nit am na foo xamante nii bu ngeen fa àggee mais xeex bi il est inévitable mënul ñàkk ku nekk après da ngay xam sa bopp ku man sa morom duma parce que Macky Sall moomul Sénégal moomul Sénégal man day éliminer ay candidats yàgg na fi éliminer ay candidats lu tax muy éliminer ay candidats yàgg na xañ seen Sénégalais yi ay carte d'identité lu tax mu leen di xañ seen carte d'identité di leen xañ seen ay carte électeur mais loolu amu ci benn droit mais loolu maanaam dafa jaaduwul kenn war ko nangu man de ku ma ko def man ku ma xañ sama carte électeur man su ma mënee xeex ak yow man damay xeex ak yow ah parce que sama droit la donc daal nañu préparer quoi préparer carte yi fas yéene euh, continuer massification bi jàppale ki nga xamante mom moy mooy président Ousmane Sonko ci monde rural bi waxtaan ak wa monde rural bi waxtaan ak wa Sénégal yëpp président Ousmane Sonko mu ngi waaj benn tournée néna na sax yaramam dafa tang après buñu ñu installé bureau assemblée nationale ba paré sax dir si lay dem def tournée bi quoi xamna naa dinañ jéem a ay pexe dañ koy jéem a gàllankoor di créer sen ay nervi ne dañuy euh, semer le bordel. mais bés bu démé ba ag fofu mom ñom xam nañ ñu ñun xam nañ leen alaykum wa rahmatullah